mbokk yi euh, ñu leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM tey seen émission gax bi amaate yéen di dalal kii di Moustapha kan nekk président mouvement Parcelles Assainies en marche Moustapha Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. asalaamaaleykum euh, Mbemba maa ngi lay nuyu. di nuyu bépp auditeur u Rewmi FM. Mhm. di nuyu waa Parcelles Assainies. Mhm. unité un ba unité vingt six mhm. di leen ndokkeel mhm. di leen laaj ba xam noppalu nañ ci dimanche bi te di mhm. leen ko ñaanal di la remercier ci invitation bi di remercier aussi rédaction wu réew mi FM jërëjëf alors Moustapha Kane buñ ne président mouvement Parcelles Assainies en marche kan mooy mouvement kan mooy Moustapha Kane dëgg-dëgg euh, buñ ko dee wax ci en quelques mots kan mooy Moustapha Kane ak li la tax motive tey nga samp li nga xam ni nag moo di mouvement parcelle Assainies en marche kan mooy Moustapha Kane jërëjëf. Mhm. ci question bu am solo boobu. Mhm. Moustapha Kane avant muy nekk président mouvement. Mhm. Parcelles Assainies en marche. dafa nekk benn ndaw bu juddoo Parcelles Assainies. unité unité vingt cinq. digganteem ak Grand Médine foofu la yaroo mhm. defee toutes ses humanités mhm. Parcelles Assainies mhm. bac moo ko génnee mu jàngee université maa ngi jàngee école PAV vingt cinq mu tuddoon école Grand Médine xam nga laataa ñuy def route bi jëm Stade Amitié léegi nekk Léopold Senghor Grand Médine ak Parcelles dañoo taxoon bi ñu séparé suñu kër féetee parcelle Assainies mhm. waaye taxul Grand Médine fu ma miin la mhm. Parcelles Assainies fu ma miin la mhm. fa laa bi ma jugee PAV am entrée en maa ngi dem fi ñu naan CM Ibrahima Thiaw ma jógee foofu ma dem une année Blaise Diagne dellu fa ñëw Madib So foofu laa amee le bac maa ngi jaar université Dakar ñu orienté woon ma fac médecine. Mm-hmm. mais comme technologie moom ma gënoon a. neex mm-hmm. gën ma yitteel. Mm-hmm. ma daal di def génie civil. daal di spécialisé wu. géomètre école polytechnique de Dakar. bi ma bi ma jógee ci loolu nag. mooy liggéey dans l' administration. Euh, ba mu def benn période ma ni. xam-xam. yokk ko dafa jot. ci laa dem defi formation complémentaire génn ak master 2 mhm. ingénieur de conception mhm. géomètre topographe mhm. kooku mooy ci wàllu formation ku koy Moustapha ci wàllu formation boo xam ne mbedd moo koy def ci nit ak quartier ak environnement am ma nekkoon jeune boo xam ne ku bëgg sport la ak li nga xam ne mooy culture léegi bu ñu waxee ci wàllum poli politique euh, dugg rek da nga ñëw rek euh, ne bisimilah parcelle doxul xaar ma taxawal mouvement bi wala am na lu la motiver tey ba nga taxawal Parcelles Assainies en marche lan moo la motiver. li ñu motiver d' abord dañoo am benn passage. Mhm. ci mouvement associatif. Mhm. sama quartier ma nekk fa président ASC. Mhm. mais avant loolu occupé naa ay post ci ASC bi depuis deux mille quatre. unité quinze mhm. may nuyu de passage ñu fa dëkk mhm. may dëkkandoo mhm. bi ñu nekkee ci mouvement associatif aussi ñuy dund parcelle parcelle nekk benn gox boo xam ne dafa nekk gox bu am diversité culturelle am diversité ci ay ressources am ressources tant que aussi am aussi ay ressources. ci wàllu potentiel yi parcelle am. ñu gis ne Parcelles Assainies dafa nekk dëkk boo xam ne. am na ñeenti marché. dëkk la boo xam ne dafa am façade maritime. dëkk la boo xam ne dafa am corniche. dëkk la boo xam ne tamit euh, dafa yem benn position boo xam ne. position bu ñu naan préférentielle. Mhm. moo ni dafa nekk ak quinze minutes. Mhm. du centre ville de Dakar. Mhm. quinze minutes portu Dakar. Mhm. daal di nekk à quarante cinq minutes mhm. aéroport. Mhm. daal di nekk à trente minutes de Diamniadio. ñu gis ne Parcelles asseni dëkk la boo xam ne bu bëri solo la. ci Ndakaaru. ak ci Sénégal. waaye dayoo boobu yëpp buñ ko xoolee. dañuy gis ne parcelle Assainies. dafa manqué. dundin bu mucc ayib. Mhm. lu waral li ko waral mooy. Mhm. ci wàllu plateau médical am Parcelles Assainies. Mhm. au lieu que mu jëm kanam. waaye niveau bi hôpitalu parcelle Assainies amoon centre de santé am. plutôt que hôpital. niveau bi sax dafa wàññeeku. bu ñu toogee ay at. ñu gis ne ci wàllu. infrastructure. de base. muy ci wàllu li nga xam ne mooy formation. muy ci wàllu xam-xam mhm. muy ci wàllu culture mhm. muy ci wàllu sport mhm. muy ci domaine boo mënti wax nga jaar ci cadre de vie ñu am géej am tefes mu waroon a jëriñ askan wi ci wàllu féexlu ak ci wàllu économie Parcelles Assainies amul loolu waaye nag li gën a tax ñun ñu gis ne en tant que ndawu parcelle Assainies dañoo war a jóg jël suñu destin en main telle que soit station buñ ci mën a occuper. Mhm. dañoo gis ne Parcelles Assainies yi dafa manqué leadership. Mm. bu porte en bandoulière le développement socio-économique bu Parcelles Assainies yi. développement dañ koy tudd rek waaye ndax euh, acteurs yi ci yoon bi ñuy jaar la da may may ma mhm. yeggali ah, mhm. ci question bi nga ma posé woon. baal ma tuuti rek. nga taaxirlu ma yeggali. muy ni amul leadership bu porter en bandoulière. développement socio-économique bu Parcelles Assainies ndaxte leader yooyu. Mhm. li waroon njëkk a nekk seen combat. Mhm. muy ni réforme 96 bi mu ñëwee. Mhm. ñu jël ay unités yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon xolu parcelle muy unité un ba unité 6. ñu génnee ko parcelle. pour de considérations politique leader yi nekkoon Parcelles Assainies muy opposition muy pouvoir. à l'époque xaruñu seen tànk tubéy pour que unité yooyu. nga xam ne bureau Parcelles Assainies foofu la nekkoon. biñ koy bi ñuy tabax parcelle Assainies ñooñu ñooy xolu parcelle mhm. ñu génne leen parcelle pour des considérations politiques mhm. ñooñu tey mhm. dañuy souffrir parce que commune Golf Sud considéré wu leen comme ñoo xam ne foofu la ñu bokk à part entière te parcelle Assainies légalement mënatu leen prendre en charge moo tax ñoom seen situation dafa metti waaw dafa waaw dafa metti trop ah, ñoom parce que amuñu autorité locale boo xam ne mhm. mooy prendre en charge seeni mhm. jafe-jafeñ mhm. bi ñu jugee ci loolu Parcelles Assainies mu nekk dëkk boo xam ni maire benn yoon la mës falal boppam maire am muy Tete Diédhiou je vais naa lu tax nga wax loolu ndaxte Parcelles Assainies bi ñu falee Tete Diédhiou dañoo toog tuuti mu transhumé bi mu transhumé waa Parcelles Assainies dal di am seen xol génn ci politique daal seen xol génn ci autorité. Mm-hmm. parce que mm-hmm. dañu reyante rayante rayante xeex ak régime PS. Mm-hmm. ba fal bi nga xam ne seen doom la. kooku ñëw daal di transhumé. ñu découragé ci politique. ak ci politicien. bi ñu demee loolu ñu ñëw yàlla def. alternance am ñu daal di jël doomu parcelle. def ko ministre def ko maire mm-hmm. muy mbay Ndiaye ñu yaakaaroon ni moom aussi day porter en bandoulière day jël li nga xam ne mooy préoccupation wu parcelle mm-hmm. mettre ko devant l'état bi mu nekk mm-hmm. mu indi fa problème mu parcelle pour ñu résudre ko bay na ci waaram waaye gis nañ ni doyul moom it état ñëw foqati nguur gi ci moom jox ko doomu parcelle bu ñuy wax Moussa Sy okay. Moussa biñ ko joxee mairie parcelle asseni mu ñëw en 2009 élection moom ci boppam ñii nee nañ gañe na ñii nee nañ gañewul mais man waaw jiixi jaaxal la mhm. mais man gëm naa ne ndem si yàlla Demba mhm. moom la xol waa parcelle nekkoon ah. bi ñu weesoo loolu mhm. ñu dem ba 2014. Euh, kii di le grand maire. Khalifa Ababacar Sall. nekk ci xolu Ndakaaru. mu xam ni ku ànd ak Sall. da ngay sa commune. mu ñëw ànd ak Sall Khalifa Sall. gañe commune bi. teg ko ci loxoom. ñu dem ba deux mille dix neuf. mu ñëw dem ànd ak parti bi nga xam ne dafa woon ginnaaw xalifa Sall jàkkaarloog moom. kon donc ñu bëgg wax ni mhm. autorité locale yi nekk Parcelles Assainies mhm. ñi am responsabilité ministre ñi am responsabilité député ñi nekk ay haute autorité mhm. dans l'État wala dans le privé am na ñoo xam ne taxawuñu ngir porté parcelle Assainies développement am socio-économique am on a le cas d'un ministre bu yoroon ministre des finances mu nekk un ministre compétent à notre avis est un fonctionnaire au compétent mais en ce qui concerne les Parcelles Assainies indiwu fi projet structurant des na daal non xam nga des gi li ko gën a indi mooy politique la ñu duggee parcelle dugguñu pour développer Parcelles Assainies parce que août électorat moo leen indi Parcelles Assainies mais développer Parcelles Assainies indiwu leen woon Parcelles Assainies ci loolu nag ñun en tant que jeune ñun ñi nga xam ne fii lañ juddoo ñuy def góor góorlu ba jënd fi kër. Mm-hmm. gëm ni Parcelles Assainies moo ñu gënal lépp ndaxte daf ñoo jox lépp. Mm-hmm. parce que foo jàngee. Mm-hmm. commune am. di jox ay subvention ay école am nga jàngee ci école yooyu. yàlla dimbali la ngay ndaw. dem université. balaa man balaa may génn. ci nguuru lay Wade yàlla def na école laa amee poste budgétaire. ñu jël ma. kon man dañu nekk ndaw yoo xam ne dañu ameel njukkal Sénégal. dañu ameel njukkal aussi suñu localité. Mhm. muy Parcelles Assainies. Mhm. ci loolu nag mhm. ñu ne gis nañ suñu commune. ndaw ñi ak jigéen ñi. dañ leen bëgg a jàppee benn ay client politique. bëgg réduire seen citoyenneté. ci inscrire ci liste électorale yi. ci bu vote jotee ñu proposer leen xaalis. ñu dem voter su élection passée ñu bañ leen toppatoo bañ leen faale ñu ne loolu nag Parcelles Assainies mhm. du question de parti mhm. du question de clivage politique mhm. du question de état du question de opposition waa doomu parcelle doomu gox bi ñoom ñooy jóg pour jël seen destin en mais mhm. ñu teg fële. Mhm. lépp loo xam ne considération la. Mhm. parti politique parce que parti politique yi. mësuñoo régler. problème mu Parcelles Assainies. kenn ku ci nekk da nga bëgg parcelle Assainies. nekk sa benn butin de guerre. nga garder ko pour mën a gañe Ndakaaru te Sénégal xam nañ ni ku gañe Ndakaaru gañe élection bu mu mënti doon parcelle ngay jaar. bépp leader boo mënti gis. ci Sénégal bi muy door. jaar na Parcelles Assainies mhm. dalal nañ ko Parcelles Assainies ndaxte Parcelles Assainies dafa yàgg am ay magu bañkat mhm. ay gor te bu ñu la jàppee duñ la bàyyi mhm. loolu noonu nag Parcelles Assainies lebal politicien wu Sénégal yëpp bépp clivage bu mu mënti doon confondu muy droite muy gauche muy PS muy PDS muy beneen parti boo mënti gis yow jaar nga Parcelles Assainies lañ la mës a njëkk a defal meeting bi la lancé Euh, ba ci président Macky Sall. Mhm. Parcelles Assainies. Mhm. plage am la defee. Mhm. meeting de clôture am. ba muy jël réew mi. kon donc Parcelles Assainies dafa jig politiciens yi. mais mais politiciens yi jiguñu Parcelles Assainies. ok xuus ci waxtaan bi dañuy euh, wax rek mbokk auditeurs yi ñoom it mën nañ dugg ci émission bi daal di joxe seen xalaat. ci li nga xam ne nag moom mooy gis-gisu Moustapha Kane ci taxawaay bi mu am Parcelles Assainies 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 bu ñu jógee foofu da nga taxawal mouvement léegi objectif mouvement bi li nga wax fii yëpp mbëbët li lan la. Euh, waa jërëjëf objectifu mouvement bi du lenn lu dul. Mhm. être utile. Mhm. à nous-mêmes. parce que boo njëriñul sa bopp mhm. doo mën a jëriñ sa waa kër mhm. doo mën a jëriñ sa waa koñ mhm. doo mën a waa jëriñ sa waa askan muy sa commune mouvement bi li ko tax a jóg mooy jëriñ Sénégal mais nag njëriñ bu dee li ngay wax dëgg la ci yow da ngay jëriñ sa gox ba pare boo jëriñee sa gox ba pare koo ne mën nga bëgg nga koo jëriñ au delà de sa gox kooku war na koo mën a gëm euh, loolu moo tax ñun suñu slogan mooy njariñ en wolof muy utilité publique deuxièmement ñu ne charité bien ordonnée commence par soi-même am adage olof bu naan bay ci sa wewu tànk ñu ne nag ñun dañoo jël en sacerdoce li nga xam ne mooy dundin bu Parcelles Assainies ña fa dëkk seen dundin ak seen koom-koom ak seen wér-gi-yaram ak seen environnement ñun ak seen culture ak seen sport ñun dañoo gëm ni ñun ndaw parcelle muy artisan muy commerçant muy ouvrier muy ingénieur muy juriste muy politicien muy entrepreneur képp ku mënti doon nga juddoo parcelle wala nga nekk parcelle wala nga mësa dëkk parcelle wala dëkkoo sax parcelle mais yow développement socio-économique gu parcelle. soxal la développement durable parcelle soxal la. Mhm. ñun dañoo gëm ni dañoo war a joxante loxo. Mhm. ñu ànd mhm. ngir jël suñu responsabilité. am une participation active. à la vie et à l'épanouissement des population de Parcelles Assainies ndax ndax loolu yaa ngi ciy waxtaanal ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum développement dem nga. gis nga ak ñoom ngir waxtaan ci nga xool lan moo gën a mën a jëmale tey parcelle ndax bu ñuy wax parcelle tamit ak dundin bu am ñu am solo ñoom ñoo fay yeewoo waaye euh, dañ naan sax foo laal dafay métti. waaw euh, bien sûr parce que aussi nañ ko def bu nekk nañ ko waxtaanee moo ciy jiitu. Mm-hmm. mais dafa di aussi ñu ngi waxtaan. Mm-hmm. waaye ñun ci jëf. Mm-hmm. lañ gën a bëgg accès suñuy mbir. ndaxte tey ñu ngi jublu ci li nga xam ne mooy teg mouvement boo xam ne mu ngi tudd Parcelles Assainies en marche mouvement boobu liñ ko tegee li ci gën a am solo mooy lu ñuy def mooy appui à l'éducation scolaire à la formation dinañ ci taxaw taxaw ngeen ci taxaw nañ ci te ñoo ngi ci à la formation à la formation professionnel aussi surtout mais li gën a li ñu gën a gën a gën a gën a taxaw mhm. fi mu toll nii mhm. mooy ni parcelle mhm. am xëy daf fi tumuranke parce que dëkk la boo xam ne pour nga gis fa enseigne entreprise buy liggéey dafay jafe loolu moo tax ñun en tant que jeune diplômé en tant que artisan en tant que entrepreneur en tant que commerçant dañoo teg plateforme bii pour appuyer mhm. l'entrepreneuriat mhm. mais aussi mhm. auto-emploi lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti commencé nañu ko pour di ci def ndaxte parcelle tey am na nit koy gis kii problème am dix millions mooy financer entreprise mais am na sama yaay boo xam ne wala suñu rakk boo xam ne wala suñu morom boo xam ne moom tey cinq mille francs bu ko jotee da ciy mun a am benn mille francs boo xam ne dina ko mën a yóbbu këram te ci loolu lañu ñu commencé mhm. te xeebuñu ko mhm. ndaxte mhm. nit ki ni ñu politiciens yi bëgg a def muy ni bugguñu téye ci seen escarcelle ah, nga ah. xam ni ñoom lu ñuy dundee wala saa yu ñu soxlaa bu korite jotee wala bu tabaski jotee ñu dajale nit ñi comme ni ñuy dajalee xar yi di leen jaay ñu jël mbokk moom salaamaaleykum allo allo asalaamaaleykum allo allo waa ñu ngi salaamaaleykum allo. allo. ñu ngi lay déglu bu baax bisimilah salaamaaleykum. waaw tur bi ak fon yi woowee. allo. allo daa mel ni man lay dégg allo. maa ngi lay dégg man la de maa ngi lay dégg. waaw bisimilah yaa ngi ci biir euh, tur bi ak foo ñuy woowee. waaw allo yaa ngi may dégg. bien sûr. ah. waaw waaw. lu ngeen def. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. seen émission bi neex na de. ma ma dugg taw ma crédit waaye naa wax sama xalaat. jërëjëf. xale boobu. Hmm. ñu ngi lay dégg waxal rek. ma ne xale boobu ak ah, idéem baax na trop. Hmm. waa parcelle bu ñu amee bopp man de bu ma leen ñoom. projet hmm. local. moom la ñuy jox parcelle. Hmm. bu moom li mu wax dëgg la ci moom day ko jox parcelle bi di ko liggéey incha allah premièrement. am na éducation bi am na njàng mi xam naa et am na aussi volonté bi. et doomu foofu la. te li de sangoor li ko waxoon mu am bopp. bu dëkk ñoo laal laan fal maire. te daaw fa benn maire jox ko ko déclenché bu dul feneen déedéet. da koy jox doomu dëkk ba bu ëllëgee ci biir jàpp nga ah seen doom la woon de moom dafa muusoon loolu la daan def ba tax yi mu seen yëpp boo defee attention la nekk yëpp maire yu dëkk yi ko fa defoon li ci maire di bareetul parce que dañoo amoon volonté ak lu ak lu ñuy doom seen i këlami kilifa ak seen i waaw man daal bu ma doon waa mhm. noonu laay def sama crédit baaxul mhm. loolu mooy sama xalaat asalaamaaleykum wa rahmatullah dañ koy sant rek di ko gërëm nangul ko itam ay kàddoom alors yaa ngi woon fu am solo ndax tey boole ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi xam nga yaa ngi fiy wax ay projet yu fasantikoo ngir li nga xam ne moo jëm ci wàllum xëy yi ndax li mel yaa ngi koy tuur ci askanu Parcelles Assainies ngir ñu xam li mel ba tax na bu nu déggee annonce yi nga xam ne yaa ngi koy def ñu ñëw jublu si li ndax yow yaa ngi sensibiliser askan wi ci projet yi nga xam ni woo jëm ci wàllum xëy ci biir parce Parcelles Assainies yi waaw jërëjëf ndaxte gis nga ñun suñu agenda mhm. nekkul agenda politique nekkul agenda boo xam ne ay élection lay topp ñun bi ñu gëmee ni dañoo war a engagé wu en politique mhm. euh, xam nañ ni dañoo war a jàng mhm. xam nañ ni dañoo war a góorgóorlu ba lu ndaw li nga xam ne moom lañu ñu war a suturloo ñu góorlu ci ba loolu moo tax ñun loolu dañ ciy sant yàlla te ba tey jii nii dañuy jéem a sàkku xam-xam ngir mën a être utile en notre communauté. Mhm. à notre localité. Euh, ci loolu moo tax parcelle en marche bi ñu ko tegee. Mhm. du ñu ne duñ fi teg benn organisation boo xam ne structure lay doon. Mhm. am ay organes ñu dëkkee wax naan dañuy sensibiliser nit ñi kese. dañoo teg li nga xam ne moom lañ naan pédagogie par l'exemple. mooy dañoo jéem a def loo xam ne danga nga ciy teg baaraam. Mm-hmm. parce que ñun tey Pass'L en marche tey boo ñëwee suñu siège. Mm-hmm. nekkul benn siège boo xam ne siège politique la. Mm-hmm. dañoo woo ay jigéen woo ay ndaw. woo ay entrepreneur. woo ñoo xam ne am nañ lu ñu def woo ñu amul lu ñu def. ki am lu mu def. su amee ñu ko liggéey ñu mu ànd ñu liggéeyandoo. dañuy mën a def dara. moo tax dañoo njëkk a teg ay GIE. la ñu teg. ndaxte bu fekkee dañoo bëgg a dem fu sori. Hmm. dañuy teg loo xam ne lu accessible la ku amagul dara. Uh-huh. da nga koy tegal parce que nit du ñu nax nit ñi. Hmm. parce que Parcelles Assainies du ñu am problème mu éducation hmm. professionnelle. du ñu am problème éducation supérieure. ñu am problème mu mille francs nga ñëw di ko tegal ay projet yoo xam ne million moo koy def. loolu da ngay nax sa bopp te dajale ay chiffres. nekk ci rajo yi di wax. nekk ci plateau tele yi di wax. Mhm. te lépp li ngay wax leer na ne lii. Mhm. c'est pas du ginnaaw suba lay am nii suba. Mhm. loolu pour ñun amul njëriñ. loolu moo tax ñu mettre en place. doore ci GIE ay GIE. pour organiser les femmes. Hmm. lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw. ñu am ci loo xam ne moom la ñuy yëngatu. Hmm. d'abord dañuy commencer ak ñoom. ci formation hmm. en germe. loo xam ne day tax ñoom ñu xam. koppar ñu koy doxalee li nga xam ne moom lañ doon jàng primaire mhm. mooy dépense mhm. li nga xam ne moom nga ciy def pour li nga xam ne moom ngay jëndee mhm. xam prix de revient xam prix de vente xam li nga xam ne moom nga ci am suñu yaay yi am na ñoo xam ne xamuñ loolu ñu defal leen loolu bu ñu paree ci loolu formation ci transformation ak aussi mise en place micro entreprise yu ndaw la ñuy def ak ñoom def ak ñoom li nga xam ne mooy aussi ñu formaliser wu waaw bu ñu formaliser woo ba pare ñoom ci seen bopp dañuy nekk benn marché à l'intérieur des Parcelles Assainies parce que waa unité dix unité cinq unité unité bu mën ci doon bu famille spécialisé woo ci tel transformation keneen ki day spécialisé wu ci telle fabrication waa marché yuy law la mhm. nga xam ni bu fekkente ne waa unité dix dañuy defar cere mhm. ñoom ñooy ñoom ñooy jaay waa unité quinze jaay waa unité 20 jaay yeneen unité yi cere. Mhm. bu ñuy defar sànqal. Mhm. unité onze bi defar sànqal. Mhm. mooy jaay yeneen unité yi sànqal. unité bii buy defar saabu. mooy jaay yeneen unité yi saabu. ñu commencé ci loolu. lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw di formaliser wu di formaliser wu. ba mën a teg ay entreprises yoo xam ne dañuy def exportation wu. produits locaux. de ce fait ñun soxlawuñu. naan ay milliards la ñu soxla pour développer parcelle li ñu soxla mooy engagement waa parcelle mhm. matière grise waa parcelle mhm. volonté waa parcelle mhm. ñu ànd ñu liggéey ci li nga xam ne moom mooy doon une économie locale bu viable parce que Parcelles Assainies amul environnement des affaires amul foo xam ne jigéen mën na faa sax xëy pour dem liggéey ci entreprise di fa di ko baleel Parcelles Assainies waxuma laa nag nga fay yaakaar am fa foo xam ne moom la fa jeune di amee mhm. salaire u trois cent mille wala cinq cent mille wala quatre cent mille non jeune diplômé mhm. bu ñu xëyee mhm. dañuy xalaat biir ndakaaru la ñuy xalaatee amee liggéey wala ñu génn réew mi ci loolu dañoo gis na ñun dañ cee am wàll muy ni ci orientation d'abord formation yi jeunes yi di choisir ñun dinañ leen accompagner ba mu nekk formation yoo xam ne day am débouché nit mën nga def formation boo xam ne baax na dinga ci am xam-xam. Mhm. mais bu fekkente ne dafa saturé. Mhm. wala amul possibilité offre d'emploi. Mhm. bu ci am Sénégal. kon ñun foofu di nga jàng di nga am xam-xam. mais boo pratiqué wul après li nga jàng dootu la jëriñ dara yàq jàngul yéen a yem. mais aussi ñu ñun ñu nar a gën a insisté ci formation wu ci métier yi. artisanat bi ñu indi ci valeur ajoutée. culture bi sport bi ñu indi ci valeur ajoutée. Mhm. nga xam ni nit ki li muy def quel que soit lu mu mënti doon le pays développés da ngay gis un plombier mhm. moom il est fier d'être plombier. un menuisier il est fier d'être menuisier un serrurier il est fier d'être serrurier. Mhm. moom ci boppam un agriculteur il est fier d'être agriculteur. parce que loolu. dëkk bi demee na noo xam ne. environnement des affaires bi permettre na ko. moom métier bi mu am. même bu dee balekat la bu balee nga xam ni fii bale nañ ko. Mhm. te loolu da koy permettre mu mën a dund mën a suturlu. Mhm. mais fii tey am nañ benn problème muy formation mooy métier mi mokkatul. Mhm. ndaxte nit ñi ay atelier daaj ban la ñuy jàngee métier ak daaj lal kese alors que commande publique bi en matière yi tey suñu artisanat bu amoon formation de au niveau locale mu am ay atelier école lu ñu projeté def ay atelier yoo xam ne ñun dañuy relever plateau technique am daal di ka fa nekk di artisan mhm. di chef menuisier bi wala mhm. chef mécanicien bi mhm. ñu defal ko renforcement de capacité mu daal di def loolu bu paree moom bu amee dix pensionnaires yooyu noonu dañuy am formation bu wóor ba pare outils yu moderne yi ñoom ñu fexe am ko ba nga xam ne moom ki yor atelier am day yor bureau am ci atelier am mhm. mën cee dundal boppam mhm. di di sol tenue bu muy liggéeyee su waree génn wala bu waree recevoir mhm. un client recevoir ko dans son bureau mu nekk loo xam ne c'est accessible maanaam ay projet yi nekk ci kanam la ci sa li nga xam ne moom ngay du ci du ci kanam dañ koy teg même bu dee benn la ñun même bu dee benn atelier la ñuy defar dinañu ko def commencé ci pour montrer exemple mhm. bu ko keneen gisee mhm. ne expérience bii baax na bu ñëwee def ko kooku mhm. day day day law parce que li ñuy def ñun Parcelles Assainies ñun ndaw Parcelles Assainies muy politicien bu dem ba xam ni banqaas yi ci kaw dañ leen doon nax muy ingénieur muy technicien muy artisan ñun ñoo dajaloo xam ni Parcelles Assainies liñ ñu doon def ñun dañ cee génn ñun suñu bopp ñun ñoo jël suñu destin en main yàkkamti wuñu ko te defuñu ko ci calendrier élection mhm. ñun élection am ak élection ñàkk la ñu yemale mooy chaque jour ñu ngi ci réflexion mhm. chaque jour ñu ngi ci ñu ngi jéem fexe parcelle mhm. nu mu jëmee sa kanam si mu la déggee ngay wax dafa mel ni kon Parcelles Assainies moom amul maire euh, waaw am na maire am na maire ah, ni ngay waxee nii kon daa mel ni daal amul kenn koo xam ne tey taxaw na parcelle ndax projet yi ñu fi tudd nii yëpp non euh, axa kay am na maire waaye lii lii may wax nii. kon ndax taxawaayam. waaw mais lii may wax nii. Mhm. bu fekkoonte ne am na Parcelles Assainies. Mhm. ñun dañuy dem defi leneen. Hmm, kon amu fa. amu fa parce que Parcelles Assainies mhm. amul école de formation professionnelle Parcelles Assainies. plateau médicalu euh, centre de santé bi maam suñu kilifa gu baax googu. ñuy ñaan yàlla yokk leeram. Euh, boo fa demee nga feebar moom bu ñu la waree opérer du foofu lañ la mën a opérer boo waree def rajo du foofu ngay defee rajo bu la feebar dabee guddi mar de taali du foofu lañ la mën a prendre en charge malgré que ni nag personnel bi ay jàmbaar lañ mm-hmm. dinañu jéem lañ ca mën mm-hmm. te pourtant ñu ngi woote wallu saa su ne mm-hmm. mais tamit amuñu ko Parcelles Assainies ku la doon wax ni toog nañu lu mat bientôt dix ans. Mhm. amul stade bu jeunes yi. Mhm. mën a def exprimer seen talent sportif. ah nañ deux mille vingt bi dinañ ci football nawetaan waaw bon bu bu ko amee ñun ñu sant ci yàlla bu baax a baax. mais mais tamit li ñu toog. Mhm. amuñu ko loolu euh, inauguré stade. du ko justifier. loolu carence la. manque de volonté politique la. te li gën a indil tolof tolof Parcelles Assainies mooy la gouvernance locale. est basé sur la politique mooy gouvernance locale bi ak acte bu ñu posé mhm. acte politique la maanaam politique bi lañ jiital daal parce que même bu ñu doon def benn benn infrastructure bu ñu ko doon jéem a defar mhm. wala ñuy defar dem benn cérémonie wala quoi que ce soit mhm. loolu pour politique politicienne mooy tax ñu koy def te politique politicienne boobu noonu moom la jeune ñu Parcelles Assainies yi moom la magu Parcelles Assainies yi moom la intellectuel u Parcelles yi mhm. moom la ouvrier wu Parcelles Assainies yi moom la acteur culturel u Parcelles Assainies yi mhm. sportif u Parcelles yi mhm. loolu lañu suur ci loolu la ñu doyal parce que léegi mënuñoo nekk mairie mënuñoo yor gouvernance locale bu ko yemale ci bale faire la police ak aussi assurer la sécurité sécurité boo xam ne sax Parcelles Assainies amul problème mu délinquance bu mag Parcelles Assainies problème mu sécurité problème mu ñàkk la am mooy ni ndaw ñi dañoo ñàkk ba sàcc ci biir kër yi moo fa am mais délinquance su mhm. yenn agression yu metti yi mhm. am na fa mhm. ñàkk moo ko moo ko mën a indi yu ndaw mooy petite délinquance la am mooy këfantu wala sàccantu mais Parcelles Assainies grand banditisme boobu noonu am fa parce que population bu civilisée la am su ma déggee mairie bi dafa lajj Euh, weesu na lajj parce que dañu def fayit waa waa tableau bu sombre la hmm. mais table bu sombre boobu nag bu ñu jugul hmm. taxaw ci hmm. loolu ñun duñ ko mën a rétablir parce que bugguñu ëllëg lii dal ñenn ñi mooy jot ci gouvernance locale da leen di bett ba suñ ci jotee seen loxo ñoom duñu préparer wu pour assumer ko wala pour ñu exercer ko te ñun tey dañu gëm ne Parcelles Assainies dafa war am benn leadership éclaté. Mhm. boo xam ne mhm. c'est une question de génération. Mhm. parce que am na ñoo xam ne mise à part lajj gi ñu lajj politique. mais tey dañu nekk ci ay. jël kooku salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. allo. allo oui. allo salaamaaleykum. bisimilah ñu ngi lay déglu maaleykum salaam. alo allo oui ñu ngi lay déglu. waaw si émission réew mi laa bëggoon woote. bisimilah. man la Cheikh Diop dëkk Parcelles. waaw ah, bisimilah Serigne Cheikh. donc ñu ngi suivre émission bi en direct. Mhm. Euh, ñu ngi nuyu Moustapha Kane euh, au mhm. maa ngi lay fay bu baax. Euh, di ko remercier ci initiative bi ñu jël quoi. mais mhm. deux am rek laa bëggoon aborder par rapport ak problème collectivité territoriale yi Sénégal. c'est-à-dire lu gën a retenir émergence collectivité yi mooy. Euh, mettre ni en valeur mooy compétence yi ñu am c'est-à-dire développement développement participatif la war a nekk c'est-à-dire avec euh, l'appui de la jeunesse et l'appui de la jeunesse avec les les autorités locales c'est-à-dire administré yi mhm. ak euh, l'administration war a nekk en phase mhm. mais su amee en su nekkee en déphasage rek mhm. donc dafay répercuter développement commune et que malchance boobu la ñu am tey ci commune Sénégal yëpp. cest il faut que ñu mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. mais c'est-à-dire suñu prôné euh, les politiques politiciennes. donc c'est-à-dire communes yi ñoom ñoom ñoo ko surpris. c'est-à-dire parcelle fépp sooy dox tey. tu rencontres des problèmes. de a un problème d'assainissement. problème chômage technique des jeunes. problème d'encadrement des jeunes. y' a tout un de problèmes yoo xam suñ toogoon di ko wax ay su bu jeex quoi. Mm-hmm. te maintenant ñun en tant que jeune. Mm-hmm. dañuy mun a am espoir. Mm-hmm. ci leader yi mel ni comme Moustapha. parce que vraiment y' a développement technique tout le temps suy wax. et que donc c' est quelque chose boo xam ne nii. mun nañ ci mun nañ ci sukkandiku pour may ko doole. jàppale ko. parce que vraiment y' a am na quinte sens quoi lu muy wax. et puis ñu ngi ñu ngi ñaan ñu ngi koy ñaanal ci ñu mhm. ñaan mhm. mu jàpp ci quoi. ok loolu lañu amoon lu ñuy lu ñuy participer. merci di ko di di remercier ñëpp. merci di wax Sénégal ci kanam quoi. merci merci beaucoup merci beaucoup. yaa ngi woon fu am solo alors bu ñu euh, foofu la ñuy desandi waaye. Mhm. dañ ci yokk lenn rek parce que gisoon nañ ni. interpellé woon nga fi sax suma juumul mairie bi ci li nga xam ne moo di VDN 3 bi. Mhm. accident yi bari woon na fi. Mhm. li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum doodaan yi. Mhm. ba ci mujj gi sax yaakaar naa suma juumul euh, ministre bu ñu dénkoon wàllum transport ñoo daal di fay def ay doodaan. Euh, lan moo waraloon alerte bi. waaw xam nga dañu dëkk unité 15. Euh, di dem plage di fa doxantu te aussi di dégg. saa yu ñu tëddee guddi. Mhm. wala bëccëg. Mhm. oto yi ni ñuy ne ndaxte dañuy bëgg mbëkk nit. Mhm. Euh, parce que dafa amoon. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waaw ñu ngi lay siyaar bu baax soxna si. rëcc na alors yaa ngi fu am solo. waaw léegi projet boobu dafa defoon étude impact. environnemental et social. bi mu ñëwee man en tant que président ASC. Mhm. Euh, ñu waxtaanoon ak euh, ñi ma précédé. Mhm. ñu waxoon leen ni ñun dafa jaaroon ci suñu terrain football. Mhm. ñu accepte ko parce que projet bu am envergure national di desservir. banlieue wu Dakar. route bi war a dem ba Saint-Louis. ñun suñu intérêt direct. lu tax ñun ñu ne vraiment li baaxul parce que projet bu baax la. projet bu structurant la. te fi toll ni projet boobu dafa jëmmal. Parcelles Assainies mhm. dafa ñun ñoo ko exploité wul parce que corniche boobu mhm. tey waroon na permettre ay entreprises yu mag am fa ay enseignes mais amul politique locale mhm. d'attractivité d'attraction des petites et moyennes entreprises wala sax les grandes entreprises yi nga xam ne ñoom foog ñu am bureau Dakar waroon nañ mën a am bureau Parcelles Assainies ci corniche am parce que da ngay am à quinze minutes port laa la wax a quinze à trente minutes ou quarante cinq minutes à quinze minutes centre ville de Dakar. Euh, comme ni mu amee Mermoz. Mhm. am fan mhm. ay entreprise yu mag nekk fa. waroon na mën a am parcelle pro politique boo xam ne day attirer mhm. entreprise yi. en collaboration avec chambre de commerce ak. Euh, pour que vraiment parcelle am benn. dynamisme waa suqaliku au moins. jeunes yi nga xam ne ñooy xëy génn parcelle. Mhm. defoon ko dortoir. Mhm. au moins ñu mën a gis seen bopp biir parcelle. Mhm. loolu amu fa route boobu noonu loolu laa ci bëggoon wax. mais li amoon mooy dañoo dem. ba dénombré plus de quinze morts. mu doon bëri lool mu doon bëri lool ndax absence de passerelle. salaamaaleykum asalaamaaleykum. allo allo oui. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la. allo dalal jàmm ci émission gox bi bisimilah. allo bisimilah ñu ngi lay déglu bu baax. asalaamaaleykum. Mhm. Memba Dramé man la Papis Mané. Mhm. Euh, bokk ci mouvement bi Parcelles Assainies en marche. Mhm. di kontaan di intervenir ci émission bi nga xamante ni que. invité nga président Moustapha Kane. ki nga xamante ni que exemple la. nga xamante ni que vision politique bokkul. ndax ñi nga xamante ni que dañuy def la politique politicienne mhm. ki nga xamante ne nee na parcelle habitant wu parcelle yëpp du politique seen ngeen war a dundee wala moom ngeen war a mën a toppee politiciens yi dangeen di ñëw ñu xool lan nañuy def mhm. loolu leen indi mu indi ko ñu boole lépp jël suqali Parcelles Assainies ki nga xamante ni xaarul lenn lenn lenn ci état ki nga xamante ni que bokkul ay nit topp ko mhm. waaye danaan mhm. yow sa xam-xam mhm. sama xam-xam xam-xamu keneen nañu boole Parcelles Assainies yi pour mu mën a jëm kanam donc kooku tey moom nga invité ki nga xamante ni vision am fu mu bëgg a jëlee parcelle ak fu mu ko bëgg a yóbbu kooku mhm. nga jàpp si ma mhm. jàpp si mhm. waa parcelle yëpp jàpp si yaakaar naa ni loolu mooy intérêt wu Parcelles Assainies ki nga xamante ni xaarul dara comme ni ma la wax ndaxte defe naa ni tur boo ko déggee rek Parcelles Assainies en marche yaakaar naa ni kooku am na lu muy lu muy lu muy wane donc vraiment may wax euh, di ne waa Parcelles Assainies bu nekkee bëgg ngeen lii di développement lii la nga xamante ni comme ni muy wax socio-économie. Mhm. ku nekk mhm. ci parteem bi mhm. nga xamante ni que mën nga koo bàyyi ñu ñëpp ñu booloo ànd ak moom ndax vision gu claire pour jëmale Parcelles Assainies ci kanam dama ne solution bi mooy le président Moustapha Kane donc loolu laa doon wax ndax man mii di wax dama bokk ci parti mais ki nga xamante dafa ubbi mais kii nekk parti bi te nekk parti bële te nekk parti bële ki nga xamante dafa apolitique mhm. loolu intéressé wu ma mhm. benn objectif la am mooy Parcelles Assainies jëm kanam ñu ne ko nax lan di tax loolu mhm. mu ne mais parce que parcelle dafa ma jox lépp kon dama war a mën a jël parcelle delloo ko la nga xamante ni que am naa ak tuut muy xam-xam muy euh, ak lu mu mënta doon yaakaar naa ne kooku daal vraiment war nañ koo mën a jàppale puus ko xam na moom mooy solution Parcelles Assainies donc maa ngi leen di remercier di kontaan di ko bu baax mhm. euh, xam nañu que fu mu jàpp foofu la mhm. te ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw mhm. merci merci beaucoup ñu ngi woon foofu am solo des na ñaari sujets yu am solo alors ñu génn fa euh, kon dama jàpp ni mairie bi moom moo lajj ci wàllum construction v ndax entreprise yi waroon nañ ñëw mën a sanc foofu ngir parcelle mën a gën a suqaliku su ma déggee sa wax bu baax waaw loolu noonu moom laa wax sànq parce que euh, suñu VDN boobu noonu benn vitrine la ñu may plage bi ñu am mhm. possibilité activité balnéaire la mhm. boo xam ne dañuy fexe mu doon lu encadré wu mhm. loo xam ne du yàq suñuy valeur jeunesse mais Parcelles Assainies amul activité mise à part quatre marchés yi. Mhm. ñu jël ko wala boutique wala quincaillerie. Mhm. bi ñaari minute rek euh, lan nga ñu mën a wax waaw bisimilah lan nga ñu mën a wax ci Moustapha Kane tey. waaw Moustapha Kane lu mu mën a wax moom bëri na quoi. Mhm, bisimilah. Euh, parce que président euh, sincèrement. wax ma dara sax mais yéene bi nga xam ne am na ko si partenaire rek. boo xam ne am na ko. parce que moom dafa nekk kaa la ñu liggéey. waxu ne mukk kaa leen. ma may leen mbala dafa ne kaay ma liggéey. ñu hmm. liggéey. Hmm. maanaam xam nga tey dafa ñuy jàngal ñu ñuy jëpp tey sëriñ si nekk passé tey sëriñ hmm. daf ñoo yee. allo allo ñu lay dégg bu baax. daf ñoo yee daf ñoo yee si liggéey yee ñu si yeewute. te tam système politique bu muy politique ak système politique bi fi nga xam ne amoon na fi. nekkatul benn. ñun daal dañ koy ñaanal yàlla suñu borom may ko. kattan ba nga xamante ne li nga xam ne moom lañ soxla ci parcelle. suñu borom ko jaajëf waaw président ñu ngi lay déggee baax a baax a baax. jaa jaa jaajëf jaajëf. ñaan suñu borom may leen ndam. ok ok. waaw may leen ndam rek parce que ñu ngi sa ginnaaw. ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa kanam. ok jërëjëf jërëjëf. waaw yow moom borom baax nga. Uh-huh. waa parcelle yëpp ñu ngi lay ñaanal. Uh-huh. waa tey ñaan yàlla rek suñu borom may leen ndam ba nga jël parcelle fekk ko sa loxo quoi. Uh-huh, merci. merci beaucoup okay. ñu bàyyi la nga continuer. Euh, ci ci loolu. mooy ni vitrine bi mu permettre. Parcelles Assainies ak plage bi ñu am. ak. Euh, duñ ci génn de waaw mais est-ce que duñu kon ne waxtaan bi. ñu continué parce ñu war ñu kon ne waxtaan bi. ndaxte ñi ngi woote ñu ngi leen di gërëm. Mm-hmm. mais aussi li nga xam ne moom mm-hmm. moo war a am Parcelles Assainies li nga xam ne ñi ci biti. Mm-hmm. wala autorité réew mi xamuñu li xew réellement Parcelles Assainies tey day baax. ñu leeral ko ci ni mu gën a rafetee. Euh, Parcelles Assainies dañu ne Parcelles Assainies. Parcelles Assainies. douze mois sur douze day taa. te ñu ne Parcelles Assainies am problème mu assainissement. Euh, d'aucuns boo waxee ñu ne la assenissement du mm. compétence décentralisée. waaw dañ ne ONAS rek la ñuy wax de. waaw mais mais mais mais assainissement bu bu bu ndox mi ball. Mm-hmm. wala bu tawee. Mm-hmm. ndox mi di taa. Mm-hmm. mais cadre de vie bi day yàqu. te mairie. mën na bañ a nekk compétence am mais dafam compétence général te loolu aussi dañ ciy interpeller l'État. di ci interpeller aussi. mairie bi di ci interpeller aussi waa Parcelles Assainies. ndaxte tey. suñu ko état defaralul. Mm. suñu ko mairie defaralul. Mm-hmm. ONAS mi nga xam ne mooy société parapublique. Mm-hmm. war ko defar defaru ko. Mm-hmm. ñun Parcelles Assainies. nañu créer benn fonds d'investissement boo xam ne ñun suñu bopp ñun ñooy cotiser. defar suñu assainissement. parce que. assainissement bu ñu dimensionné woon. il y a trente ans. tey gouverner se prévoir. ñi ñuy gouverner bu fekkante ne ñoom prévoiruñu loolu. ñun Parcelles Assainies. ñu ngi invité ña fa dëkk. Mhm. ñu ngi invité la mairie. Mhm. ñu ngi invité l'État. Mhm. nañu solliciter ñun parcelles waay yi. ñu assainir parcelle une bonne fois. ok parce que. tamit euh, boo dëkkee parcelle juddoo fa. zone yi benn la. Euh, ñun suñu bopp boo dëkkee parcelle rek. nga xàmmee nga xam. yow war nga mën a def modèle numérique Parcelles Assainies parce que xam nga point haut yi ak point bas yi. Mhm. fii taa même zone yi ñooy taa. Mhm. te à chaque fois chaque année nag état mhm. wala mairie wala ONAS. dañuy indi ay mesures conjoncturelles. alors que on a besoin de mesures structurelles. loo xam ne. vraiment day prévoir. court moyen et long terme. parce que dafa rafetul ci suñu tur. foofu ñu ñu tudd Parcelles Assainies. amuñu assainissement bu baax te loolu mhm. dafay impacter ci environnement des affaires ak économie wu parcelle mhm. ndaxte da nga gis benn waay bu ñëw investir parcelle quelque mhm. part mais fi mu investir ci bunt bi day toog rek même mois bii nii bii bii bii ñu toll nii suñu koñ man mën naa ñibbi fekk fa ndox léegi nit ku ñëw investir ay millions Parcelles Assainies. gis loolu du sawar ñëw gis loolu. Mhm. mais après day day redéployer wu dem feneen. loolu noonu rek ci lu yàq environnement des affaires la bokk. Mhm. problème addiction eau potable. Mhm. Parcelles Assainies da ko am ba léegi te boo ko waxee duñ ko gëm. tey Parcelles Assainies suñu robinet yi. da ngay day dañuy manqué ndox. deuxièmement dañuy. xel 22 lay ubbi. non li gën a grave sax bu doon day manqué rek garaawul. mais dañuy ubbi suñu robinet mu génne ndox mu ñuul kukk. mu doon mu leer na ni lii c'est impropre à la consommation. Okay. Euh, de ce de ce de ce mhm. benn combinu mhm. problème la alors que ñi yor gouvernance locale bi dañu yaakaar ne. Mhm. mbir mi. ñëw bale marché. ñëw non loolu baax na. c'est c'est c'est déjà bien. loolu baax na mais. problème mu mairie dëgg dëgg dëgg dëgg. jël am du du du rôle am du jël ay emploi moom mhm. emploi yi nga xam ne ñooy administrer la war a jël mhm. wala mu contracter ñoo xam ne ñooy yor service yi okay. propreté mhm. éclairage leneen ak leneen leneen ak leneen euh, moom mu créer environnement des affaires nekk moteur xëcc yenn entreprise yi wala xëcc yenn promoteurs yi wala xëcc yenn bailleurs yi nga xam ne am nañu xaalis bëgg investir yow nga permettre leen ay avantages pour que ñoom ñu ñëw investir sa commune. ok gis chambre des métiers. Mhm. gis chambre de commerce. Mhm. gis ministère yi travailler ak service su état bi. Mhm. pour que ñoom seen bopp. ñu favoriser. yow sa commune. dañu war a teg benn politique boo xam ne. mairie loolu la waroon def. mooy ni. wane ni Parcelles Assainies yi. jox intérêt état pour mu ñëw. jël en charge problème Parcelles Assainies yi. ba pare aussi favoriser li nga xam ne. moom mooy partenariat public privé. de manière boo xam ne transparente. pas muy am ay conflit d'intérêt mhm. pas muy am délit d'initié mhm. mais mu nekk loo xam ne la mhm. dañ koo def exclusivement mhm. pour njëriñu Parcelles Assainies pour permettre waa Parcelles Assainies ñu mën a am foo xam ne fa lañ mën a suturloo mais parcelle loolu dafa dafa sooxe trop ok dañuy euh, avancer rek daa mel ni lu ñu desee ci wax waxtu bëriwul léegi euh, am na benn coow lu juddu ci biir Parcelles Assainies mairie bi ñuy tudd ñu ne mairie bi dañ fa détourné benn deux cent millions lu jëm ci wàllum bourse yi ba ci collectif sax am collectif bu fa juddu. Mhm. ñoom ñuy taxaw ñuy ŋàññi mairie bi. Mhm. ci li jëm ci li ni mel. benn question ndax yow ci collectif bi nga bokk. non bokkuma ci collectif bi. yëg nga euh, détournement deux cent millions yooyu. waaw bi ma yëgee problème mu deux cent millions yooyu. Mhm. bi ma ko yëgee. vraiment je me ah, lu tax bokkoo ci collectif bi ba pare. waaw d' abord. Mm -hmm. informé. Mm -hmm. ñi ma mën a xam ci collectif bi. ak aussi bi ñu convoqué ay jeunes ndax problème boobu. Mhm. déplacé wu naa à trois reprises. Mhm. à la au commissariat de police. Mhm. pour apporter leen sama soutien en tant que leader parcellois. xam ni doomu parcellois bu nekk ci tolof tolof. man dama am devoir. ñëw taxaw la. mais problème boobu. d' abord. dañuy wax parcelle lu am ñu ne mairie bi maire bi maire bi maire bi. mais problème boobu problème mu. niveau wu conseil municipal bi la. maanaam niveau bee baax. waa niveau bi ñoom ci seen bopp. Uh-huh. parce que lu mel noonu su fay am. Uh-huh. lu mat quatre ans. Uh-huh. ñoom ñu toog bis. di ko doog a mën a signaler. man je trouve que ni. mise à part loolu sax. mooy parcelle dafa am problème mu conseil municipal. conseil municipal bi. ni ñu ko composé ñi ko composé. dafa am problème mu niveau. dafa am problème mu connaissance. de la gouvernance locale. problème mu maîtrise problème mu niveau. Hmm. problème mu background. loolu moo tax kiy diriger mairie bi. Hmm. moom lu bëri lu ko neex mu mën ko def. wala mooy buur di bu mi daal waaw wala ay nitam mun koo def. Hmm. parce que euh, lépp dañ koo bëgg def ci politique. mooy ñi ñu am na ñoo xam ne ñu ànd ak maire ak ñu àndul ak maire bi. lépp ci politique lañ ko bëgg a def. te dafa am benn affaire boo xam ne tamit ñoom ñoo génne ay chiffres. waa ñi yoroon mbiru OPEF boobu. Mhm. ñu ne joxe nañ lu mat soixante mille bourses. Mhm. Euh, li nga xam ne loolu yow. Mhm. en quatre ans. Euh, peut-être kon ministre wala ministère de l'enseignement supérieur. moom amul capacité def loolu ville de Dakar amul capacité def loolu. comment est-ce possible. soixante mille bourses. mairie di ko joxe ba pare di am retard de salaire. donc y a roche. y problème. te loolu aussi. Mhm. li nga xam ne mooy suñu avenir ay doom. Mhm. suñu avenir ay rakk. Mhm. Euh, la justice war na cee wax. Ah, affaire mi ngi ci yoon de. waaw ah. moo tax duñ ci sori noonu. mais li ñu wax ci loolu la ñu war a wax mooy ni. nañ ci wax. ministère de l'enseignement supérieur na ci wax. ministère des collectivité locales na ci wax. ndaxte. da ngay gis école bu ubbi. wala école de formation bu ubbi. yow defuloo sax six mois bëgg am quatre cent étudiants. Mhm. di proposer mhm. ay master wala ay licence yoo xam ne vide de contenu. Mhm. ay nit am ay cabinet constitué en cabinet di def courtage. te loolu man courtage laa koy tuddee bu dee mairie moo koy def mairie bi courtage la doon def. te formation yi ñuy yóbbu xale yi. buñ nee dañ la may bourse entière. yow nga war a fay. cent cinquante mille inscriptions. cent cinquante mille yooyu formation bi ñu lay defal. Mhm. la plupart mhm. mérité wul fay. parce que école yooyu. Mhm. ñu ci bëri. nekkuñu en cours de validation seen diplôme CAMES. boo génnee contenu formation yi. amul sens. loolu moo waral. ñoom ñu mën a joxe soixante mille bourses. bu fekkee am nga demi bourse. da ngay inscrire deux cent cinquante mille. dafay chaque mois vingt cinq mille. boo cumuler li nga xam ne moom nga fay yëpp. tey ëpp loo xam ne may nañ la bourse wala mayuñu la bourse moo yam du bourse mhm. mairie parcelle amul budget boo xam ne day génnee bourse kon waruñu ko tuddee bourse mayewul bourse mhm. man je di que ni mhm. ku ko tuddee bourse yow yaa ngi def arnaque ok de te loolu ñi ci pernant mooy étudiants yi ñu jël pour ñu dem jàngi foofu ñooñu ñoo ci pernant perdant maquillé nañ ko nag ak quelques écoles yu baax ba nga xam ni. Mhm. dinañ mën a ni kii ñoo ko may bourse mu dem jàngi lii la. Mhm. mën nañ ko. Mhm. mais la ca ginnaaw moo gën a métti te loolu. war nañ koo leeral. en plus de cela ñi doon xeex loolu. aussi man gis naa. ñu ne dañuy maye vingt mille bourses. mais aussi kon ministère de l' enseignement supérieur ak problème orientation étudiants yi am yëpp. vraiment maa ngi orienté président Macky Sall kon mu ñëw Parcelles Assainies. am na solution wu. enseignement supérieur u Sénégal. <laughs> loolu laa yaakaar quoi sincèrement. Mhm. pour être sérieux donc bu fekkente ne ñoom ñoom ils sont cap mhm. capables. Mhm. mille bourses. mairie bi en quatre ans mu capable may soixante mille bourses. kon problème am vraiment. bu fekkente ne am na. parce que aussi nit aussi duma la weddi. te xaw ma <laughs> réellement. Ah, ban bourse nga mais problème enseignement supérieur Sénégal. ak problème formation yi vide de contenu. yi nga xam ne état bi moom lay xeex. kon état bi am na solution bu am Parcelles Assainies. ñoom nañ ñëw Parcelles Assainies am na ñoo xam ne capable nañ. insérer jeunes yi nga xam dañ am problème mu orientation nañ ñëw Parcelles Assainies mhm. alors Moustapha Kane ci euh, émission bi yëpp wax nga ay projet ŋàññi nga mairie bi euh, léegi Moustapha moom ndaxam candidat la ci élection yi nga xam ni dëgmal nañ ko mu jëm ci élection locale naam app bi xamaguñ ko ba tey man candidat la ci liy defar Parcelles Assainies mhm. gis nga tey jii nii mhm. maa ngi ci liy defar parcelle Assainies suba maa ngi ci liy defar Parcelles Assainies mhm. au moment des élections mhm. ça sera aux Parcellois mhm. et aux Parcelloises d'en su fekkente ne Moustapha Kane dañ ko bëgg a teg ci boppu mairie bi mu liggéeyal Parcelles Assainies wala déet parce que fi mu toll nii wax candidat la man la man la yow waa parcelle ne yow la ñu wóolu man man moo ma ko ëppal solo te pour vous dire que ni awma calendrier électoral man sam bopp ci li ma am mooy calendrier wu liggéey sama liggéey. bi may mhm. suturloo. Mhm. bi ci des jaam liggéeyal Parcelles mhm. Assainies loolu moom ma tax a jóg ngir Sénégal xam ne Parcelles Assainies am na jeune am yoo xam ne ñoo taxaw. autour de mouvement muy man suñu mouvement am na. politicien insisté na ñu jël ko. jël ko allo. salaamaaleykum dañ lay jël une minute rek wax ñu. Euh, waaw bisimilah. yaa direct si émission bi. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw ñun man la Soxna Ndeye Kandji. jërëjëf ndax na Soxna Ndeye Kandji. dëkk parcelle unité 15. Mhm. waaw Moustapha Kane nag di suñu leader nekk parcelle en marche. Mhm. nekk nit ku baax nekk nit ku neex a àndal. Mhm. muy jàppale nag ci macha allah xale yeeg mag ñi ndaw ñi. Mhm. di liggéey. Mhm. ñu am kontaante lool nag ci moom moo tax buñ ko invité day neex pour ñun ñëpp ñu bàyyi suñuy soxla. ak suñuy yittee dugg. jërëjëf. ñi ci des ñëpp a ngi toog nag bëgg dugg mais mënuñoo fexe nag ba dugg. Mhm. dañuy waxtaan bi rek dañu bëggoon jox leen waxtaan bi. waaw waaw. waaw ma ne loolu la mais xam nga day rafet nag suñu leader nekk foofu ñun ñëpp ñu di ko sentir war a war a war a war a dugg ngeen xam ne jërëjëf parcelle yëpp a ngi ci ginnaaw di si jégalu bu baax jërëjëf jërëjëf waaw la rek ñu ngi am kontaante bu baax nag mhm. xale yi kon xaar ba ci ñu essayé waat ba xam jërëjëf alors jërëjëf léegi maanaam projet nga am bëgg jiite parcelle ndax yaa ngi ciy wax ak ñi nga xam ne ñoom ay acteurs lañ ñu yëngu ci wàllum développement parcelle ngir tàllal leen loxo pour que ngeen mën na euh, jubbanti parcelle su ma ko mënee waxee noonu. waaw bien sûr que oui parce que tey bu fekkente ne dañoo bëgg a defar parcel mhm. sans les parcellois yi nga xam ne am nañ valeur. Mhm. sans parcellois yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk parcelle. Mhm. Euh, lii lii soxal parcelle soxal leen. yow boo dugul dem ci ñoom waxtaan ak ñoom. kon yow bëgguloo réussir sa pari. ñun suñu ñu omnibulé wu pour mm-hmm. nekk maire ou mm-hmm. ministre ou mm-hmm. quoi que ce soit li ñu gën a soxal mooy Parcelles Assainies situation bi mu nekk nii et encore une fois amuñu problème ak nit ñun problème li situation wu parcelle lañ amal problème ñun suñu problème mooy situation bi waa parcelle di dund te kenn mënu ko dindi loolu noonu ñun moom mooy suñu combat te yàlla def am ay jeune entrepreneurs ay jeunes ingénieurs ay jeunes médecins ay mhm. jeunes pharmaciens. Mhm. ci loolu maa ngi nuyu bu baax euh, amical mhm. bu corps médicalu Parcelles Assainies di ay jàmbaar di taxaw Parcelles Assainies euh, vraiment di ay ouvrier di ay artisan di ay artiste di nuyu Cheikh acteur culturel vraiment ñoom ñoo taxaw pour développer Parcelles Assainies te aussi Parcelles Assainies dafa am deux types de politiciens yu fi am ak deux types d'acteurs ñoo xam ne ñenn ñi dañoo fayit ñenn ñi dañoo fayir te mhm. am na ci jeunesse boo xam ne mhm. parcelle dafa am ci ñoom yaakaar mhm. ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ni il n'est jamais trop tard c'est possible pour que ñoom ñu jàpp gëm ni du autorité politique bu nekk ci kaw. Mhm. moo mën a defar moo mën a defar Parcelles Assainies ñun ñu fi dëkk. Mhm. suñuy doom nekk ay tout tànk. Mhm. ñu bëgg suñuy doom. am ay école primaire de qualité. am centre de santé. bu plateau médical am. relevé am. bibliothèque municipale bu fonctionnel am stade municipal bu fonctionnel am auditorium am ay école de formation professionnelle am cadre de vie. bu mhm. mucc ayib. Mhm. am assainissement nag parcelle. bu doy waa parcelle. Mhm. non assaini la ñu war a la ñu war a nangu tudd. ba ñu assenir assainir asseni Assainies. kon loolu moo nekk kii. di gërëm waa Parcelles Assainies en marche di gërëm waa parcelle yëpp. gëm ni euh, parcelle. changement mën na nekk. waaw te kenn waru ko politiser. parce que ay fonctions yu ñu politiser. moo fi la ñu bëgg a def même. ñu baal ma imaam sax dañ koy jéem a politiser même chef de quartier dañ koy jéem a politiser même bàjjenu gox dañ koy jéem a politiser ah, alors que ñooñu uh-huh. ñoom ñooy uh-huh. acteur développe acteur u uh-huh. communauté à la base ñooñu ñoo war a nekk relais nekk interlocuteur kenn ku ci munti nekk kon ñu ngi gërëm bu baax euh, waa réew mi jërëjëf vraiment di rafetlu émission bi di rafetlu concept bi di bëgg aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu gox. Mhm. nañu communiqué nañu ñëw wax ak journalistes yi. Mhm. en toute liberté. Mhm. ñu nangu. répondre ci interpellation yi. ba tax na ñu ngi tàllal suñu loxo rek ki nga xam ne moom mooy di maire bu Parcelles Assainies mu di Moussa Sy ñu nit am nañ euh, yéene dalal ko fii bu ko defee mu daal di wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, jafe-jafe askan woowu mbokk yi euh, émission gox bi la woon di leen sant di leen gërëm di gërëm aadama Diallo bi nekkoon ci xarala gi gërëm itam. Moustapha Ka nekk njiital euh, mouvement Moustapha kan nekk euh, njiital euh, mouvement Parcelles Assainies en marche xëy na beneen dimanche ak beneen invité di leen sant di leen gërëm bu baax a baax.